Cheikh Mustafa ya ne kha andal dal nga xel waman nga ru yi fi agulon jebal sa baay waman nga nar wa mar wolof kendre réeratul yaay tiitaru ba do yeeg ñi fi sant njaay Cheikh Moustapha kula daw nga dab kula fay nga fay leta doonu fayu mboolem jëriñ yeeg baayo yi yaay seeni baay yaa nuy teral yaa nuy yërëm inu may dërëm yaa nuy defal yaa nuy defal yaay jënn waay yaa yor teraanga yi mag ña Bamba yoraale woon moo tax yilif nga ba jàll Saalum jàll xaay mhm. yaa xam teraanga yi waa Kajoor ak waa Bawal yayoor sagu buur yi fi daa dem la mbaay Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha Cheikh man sopp naam di Cheikh ak ñem yi li fa këram góor ñaak jigéen ñaak ku fay baaw duy nga yàllaw yàlla nañ ko may ak noteel lislaam ji na ci moom muy jiite góor ak jigéen ñi bég fa yàllaw jumaa ji am na fi ndam loo xam ne kenn du ko jot faykat bi yàlla na ko fay muy bég fa yàllaawu saxaar gi teer si na tey tuubaa ci kaw ndigalam la soog si moom doy doy di jóor fa yàllaawu jaraamay Moustapha yaa am nga neel ak i may aw fit aku tabee ànd ak ngor fa yàllaaw jaraama yow Moustapha yaa am ngërëm ci lu wér te nga terle nga yaay jàmbaari yàlla yaramay mu yaa am cofe ak i may gëm nañ la xam nañ la yaay wéttal fa yàlla yaa am jaloore fa Tuuba am jaloore fa Njaareem am jaloore fa Taayif gëm nga yàlla tindoo di ak nay de yaa fal ba duutuñu loof yaa leen teg fa ay jàmbaari yàlla baaxkat bi yaa mata way jàmbaat ji yaa mata kañ fireen sa sawraaya yaa aw yoon wayallaaw yaa gindi gox fireeroon ban goyel fa Tuuba sa leer ga sar na ci ñoom ñuy sant yàlla waaw sama waa ji ni ma fii moom day kërum gën la ndax ki ki ki ki ki rëdd kër gii hmm. ci ndigalal sëñ Modou Moussa Mbacké di bàyyi mbay yax mbay maanaam nit daa ñaqal sëñ Tuubaa hmm. baam jur doomam yu baax yii hmm. nga xam ne bis bi jaral na leen baax ku ne jaral na leen teraanga ju ne looloo du fii bi dëgg la te ñun ñii ñëpp ku ci ne ñii seen kër a ngi fi kun mën a dal ñii seen seen kër sëriñ a ngi fii ñu mën a dal ak seen sëriñ waaye du man damaa siyaar sëñ bi ñëw fii. dëgg la waaw kon sax nañ waaw. waaw sama ko ne barab moom. soo ñëwee gis ñëpp a ne la. day daal di wane foofu. dëgg moom li mu def rek na saañ bay xëy. tey boo xoolee ñii fi toog. kenn ku ci nekk boo xoolee xam ne am na lu ko suñu borom def. dëgg la boo doo gis kenn it. am loo xewal ci moom. xoolal wëlbatigul jël loolu ay ay. ay ay ay ay ay waaw yaa ngi ci was bi yow. mando bi nag moom mënoon na fi gën a neex ndax bu fekkoon na suñu sang bu teel ba mi ngi fi. sëñ Cheikh waaw sëñ Cheikh Mbacke. bu fekkoon na neex lool waaye nag fi mu ne nii moom. neex na waaye neex gi des na lool. manqué na daal ñu ngi ñaan la na bu déwénee. yàlla bàyyi ko ba fekk ko fekk jàmm fekk fi ñun ñëpp rek. amiin barke borom Tuubaa. yow fii li nga yor noonu moom fi ngay defar nii. lii hmm. mooy was rek. was wasane nii. waaw wa kata jaa ngi nii was baa ngi nii. lépp ngir waajal bés bi rek. waaw waajal bés bi rek. Oh, ñaan ci bés bi rek. waaw naa kontaan si bés bi rek. Hmm. di ñaan ñu fekk ay at yu bëree bëri. amiin xéewal yi gën a dooleeku. est-ce a yi waaw. Ah. ñaanal suñu sang bu baax nag di ñaanal suñu sang bi. sëñ Cheikh Fall yi ngi koy ñaanal bu baax di ñaanal nag. rakkam yi mu fi nekkandool lépp ñu ngi leen di ñaanal di ñaanal xéewal gi suñ borom gën a xéewal gi bis bi neex na macha allah motochère rek moo fi manqué nag moo mu xaw a ah, waaw yéen koy doxalal waaw ñu koy doxal dara du yàq waaw nii rek da leen def feex bëgg jàmm fas yéenee màggal bés bi rek baa yaa may reede waaw fas yéenee bége rek waxee sunu mhm. waaw Sénégal bis bi rek màggal bi allah di nag ñu fekke ko ay déwén a déwén amiin dara fatil nu fekke laay ndeysaan dara bañ a manqué ak Cheikh Moustapha dara bañ a manqué at mu jot nii lay doxee waaw xam aram moom moo jiit dégg nga liggéey wallaay mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy jiite jigéen ñëpp mooy aaw kër gi daal ndeysaan dëgg la at mu jot ma ànd ak ñoom mhm. kenn du def defar defar defar bernde yi defar bi nga xam ku ci yam da nga xewlu ba tubarkal billahi ndeysa tay it rek la sëriñ bi bëgg jaam yàlla ko xam sëñ bakki xamne diko massa ñor ci aduna moy bernde berne yaama yalla ak bernde lolu daf ko don ci sëriñ cheikh don ko ci Seex Mamadu Bousso don ko ci Sëriñ Tuubaa nga xamne moy mooy ba tax na kep ku ñew ci dekk bi kër go dugg bokk sa kër yam kër goo dugg xewlu bu tuwaarkal la kër goo dugg sang kër goo dugg dal fanaan am foo fanaan am foo dugg am am foo dalloo ba màggal gi jot ñu fanaan ci baas bi ku ne dellu fa ba déwén ak jàmm at jot noonu ko def dëgg la kon xam naa toll nañ ci baati añ yi waaw su noppee nag yii nag andi naan yi ci aju waaw yi ci topp rek ko defee nag daal di waaj a siyaar ba nag. waaw dem Cheikh Moustapha Al Karim. waaw waaj a siyaar ba. est-ce que eggal la des ci màggal. àggal des ci màggal. dëgg la li gis nag moom ca baas ba rëdd. baas ba ko fay ne. ah baas ba dañ fa nekk noonu ba ba mu ba fajar. waaw incha allah. yaa ngi sëñ Xaadim mu jox sëñ Xaadim yi mu. mu barkeelu moom jërëjëf yàlla yàlla motul yëpp ak seen xarit. tubaarkalla macha allah. lépp a ngi kat ñu ngi waajal añ bi ni yaakaar na. wala añ na ñu ngi séddale añ bi. waaw. gan yi ñëw nañ macha allah. Mhm. ndi ko màggal ci sunna rek. waaw ah. di sàkk ngërëmul sëriñ loolu daal mooy sunu duñ ciy def daal lu mën a toll. Mhm. Eh, sunu sañoon gën fa cee man gën fa cee def ndax sëriñ si am na koy defal jaar man kon daal yow itam ñoo ngi leen baax nag ndax wax dëgg yàlla at bu nekk nga tey ko def si kon baax baax na wax dëgg yàlla. jërëjëf baax. Ah.